laqil lisaani waxlulan minhu lucuqad waj'alhu daakiran wa shaakiran abad waj'al kalaami raashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana alxikam faliyahab taala wa barakaatu mbokki daara ji waa ëtt bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di biral nu yoog yëpp ak banqaas aju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 Ah, tey ñu fas yéene andil ma bu amati solo te mooy wéyale leenu tàmbali woon démb te sëriñ bi wax ko ci lépp luy fàttali jullit bi ëllëg ak lu koy soññ ci jëfu yëw ak wattandiku luy waral bakkaar ak i àq ndax àdduna jaarukaay bu bu gaaw a gaaw la saxukaay bu mooy ëllëg àllaaxira te loolu mbokk yi lu yomba xam la ndax bis bu nekk eh, kenn ku nekk boo xoolee ñi nga xam ci ñuy fabu di la fi baax ak li ngay gis ci ñoo xamut sax kum yeewut ma xam ne dara mënu laa yee groupe whatsapp yi ñu ne rekk bés bu ne boo xëyee liñ ci affiché ci ay photo di leen sàkkul ak ñaan ci ñoo xam ak ñoo xamut kum dal sa xel sam xel dafa neex waaye xalaat moom képp ko amum xel danga ko def ah, te kenn ku nekk itam mbir moom bu fekkee ne luy ñëw la te kenn xamut kañ lay ñëw te sëñ Tuubaa nee na itam luy bette la mooy li gën a jommale ndax kenn mënu ci dara mooy li gën a weex kenn ku nekk war na koo waajal kenn ku nekk li ci sa gannaaw moo la sore li sa kanam jege na la lool rawatina dee moo tax sëñ Tuubaa wax ne almawtu aqrabu wa adha mooy li gën a jege mooy li gën a jommale itam mooy li gën a wexit te amul fenn fuñ koy dawee te buy ñëw dalay bett nan la ko waxee ca tasawdu shubban waxaat ca nax ju ne almawtu yaati baxtatan wa rubbama yakunu sa shawaaxile muxtarima dee day bette te bariwaan la muy fekk nit ki ci ay yitte mu dagg ko ndax dee xamul yitte lem xam mooy jot kon nag kenn ku nekk na bàyyi xel ne waxtu wu nekk mën naa agsi Ah, am na ci mag ñi àndoon ak sëriñ bi kat koo xam ne nii dafa daan def saa bu nit génnee àdduna bañ bañ koy waajal ci armeel ya buñ ko waajalee ba jébbal ko boromam ba noppi day wax ne ana ko ciy topp kenn du ko wuyu mu ne kenn ku nekk na ko jiiñ boppam ñëwoon nañ fi ñëwaat nañ fi danañ fi ñëwaat kon kenn ku nekk na ko jiiñ boppam danaa noonu la demee nag kenn ku nekk say jëf nga war a rafetal ndax ay jëf rek mooy lirul tàggoog borom mooy li borom mën mënula tàggoog moom ay jëf moo tax loo am ci àdduna moo xam da bari le wala da ngaa néew le da nga lu mën doon rek àdduna moom fi nga koy bax moo tax sañ ba jaxate ne àdduna jiikat boo ko amoon nit bu ko yabewu nit jaamoo ko yàlla te bu ko doyloo mukk ko te bu ko doyloo mukk ko te bu ko daagoo mu ko ko doyloo rek ko niiroo bay fàtte yàlla te loo fi jeg-jeg ak loo fi bég-bég ba fi jag ak mbég te woo ji yàlla ñépp ko fi baax ku jàpp it ba ku jàppul it ba te woo ji yàlla am na fu muy waxee dënk dénk bu mu doon dénk soxna Aminata Mbàkke moom sëriñ Mamour Anta na nga mook eh, borom daaru ñoo bokk jigéenu borom daaru la na ci bayit yëm ko dénkoon moom sañ bay jaxati bayit yu am solo daf ko wax ne ko jëmal ci yàlla te doyloo yàlla ak dogalam bul fàtte it senn saa bis penc baaki mbiram bu nit ñi dee fàtte dee kay bég ci àdduna ji jàppal sa xel teg ci de ak yàlla yow te xalam bul soxla woo laf ci dunyaa ji lu dul jëf yiw ku nekk day mujj wéet ak ay jëfam ci paxam loo saytu dem ba ko mbaa sax loola dem bala yow sa jëfi nag du la baakaay dem te doo ko ba dem boroomi yëf dana tàggoo koy jëfam bu rafet boroom mi jëf nag du tàggoo koy jëfam fu mu jëm fabal sa jëf yi la ngay àndal defar ba mu jag koo gis jëfam yi la am lii rekk moo ma ta xam kon nag mbokk yi alxuraan yee nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yee ngi ci ay ahadis yu bari Sëriñ tubaa yee ñu boroom xam-xam yee ngi ci mbirum àdduna kon nag nañ yeewu nañ nangoo yeewu nag te wàññi nelaw yi waaw te farlu ci jëf aw yiw lépp lu ñuy taxa texe ëllëg ak lépp lu ñuy may aw yiw ëllëg waaye li gën a am solo mooy wattandiku lu yàq aw yiw te mooy bàkkaar suñu digg ak suñu borom waaye nag rawatina nag ay àq suñu digg ak suñuy eh, moroom yi bindeef ndax suñu borom ku bari ak njéggal la te saa boo ko wooyee mën na la wuyu waaye mbindeef mën nga koo tooñ bala ngeen a dajeewaat muy ëllëg ci penc ma te faaw nga fay ko kon nañu wattandiku loolu ñoo ngi sant bu baax mbokki jullit ak mbokki taalibe yi ci jàppale gi ñuy jàppale waa daara Hikmatul Yawmi rawatina daara ji di internat bi nekk Thiès nga xam ne ne fii mu agsi mbokki jullit yi bokk ci association bi ak bon bonne volonté yi wax dëgg ñoo ko fi tolloole di ñaanit ñi nga xam dañuy def seen dara ci numéro daara Hikma bi muy weer yu dee yi cotisation yi ak bonne volonté yi ci def seen dara ku noppi nga envoyé ci whatsapp bi